asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sunu sang bu baax bi sunu sëriñ sunu lépp say dongo di sa njaboot di waa Daaru Salaam Typ ñoom ñëpp ñoo nekk nii teew sukk fi sa kanam ngir siyaare la ak joxewaat seen bopp yeesal seenu njëbbal yeesal seenu bàyyeeku yeesal seenu ñàkk tànn te ànd ko rafetal fi sa kanam loolu nag ñoom ñëpp a ngi nii waaye lañ ci jiital mooy sa doom ju baax ji di Cheikh basiir mu fi jóge nga xam ne waxtu wi daaw moo jiite woon liggéey bi te yàlla def mu wàcc ab liggéey bàyyee nu des ci liggéey bi ñun ñi ne ci di ci jéemantu ñoom ñii ñëpp góor ak jigéen ñi ngi maase di la ko siyaare ndax booba ba léegi suñ boroom def na ñu ngi soog a jàkkaarloo ak yow ci mu yaatoo nii ba tax na kon neen ñu ngi la koy siyaare bu baax a baax a baax di la dollee ñaanal suñ borom bàyyi la fi ba naa li nga am yëpp fas yéene ko liggéey liggéeyal ko sa maam ju baax ji nga fi toogal nga àggale ko te ànd koog noonu ñoom nag dañoo xam ne dañoo am tawfeex yoo xam ne bariwul ñu koy am ndax xaas la ndax kuñ ne sëriñ Tuubaa daa ñëw ci sa buntu kër kenn ku ne ci yow loolu ñëpp mënuñu koo am kat te xaas ju rëy la ñoom nag xam nañu xam nañu ne loolu yombul te tuutiwul itam ba tax na loolu ak cant rek moo ci war leen seen siyaaru tey jii daanaka seerub sant rek la ndax sant gi li ci war ñoom mënuñu ko waaye nag dañuy jéem rek la ca des mooy xam nañ ne tëggooñ yenn coona xam nañ ne it sa kër nga ñëw waaye boo gisee ba nga ñëwee ba léegi kenn toogatul seen yitte yëpp ñu def ko ci liggéey bi dañ koo dugal ci biir cant gi ma wax te ab taalibe nag li ko war mooy li ma wax léegi muy sëñ bi misaal na ko muy sifaatu saadixal muridi la ci jiitu mooy mbëggeel gi mbëggeel gu sax gi tam dëggu te loolu lépp gis nañ ko ci ñoom la ca topp muy topp ndigal te sax ca kon nag nun li nu war nun tam ak lii ñuy jéem a def muy li nga bëgg rek muy jéem a yëkkati yitte nit ñi jéem a yëkkati seen pësteef ak jëme ko ci sëñ bi ñun nekk suñu yitte ak suñu pësteef suñ ko yëkkatee ci yow rek lañ ko jëme ndax yow si lépp danga ko jox suñ tubaa ba xëy di suñ tubaa kon nag ñu ngi jéem a yëkkati suñuy pas-pas ak jéem a yëkkati suñu yitte ak suñu yéene jëme ko ci yow ñoom ñi ñëpp itam biñ biñ dajaloo xam nañ ne ab taalibe addiyee daa bokk ci sart ab taalibe ndax tuba li abdin muridin saadixin lahu bi xidmatin ba ma ko waxee aw bi hubbin aw hadiyaati la ci teg comme ab taalibe ni mu waree liggéey war a sopp sëñ bi addiyee noon la ko war a joxee ba tax na addiyee ji li néew ko bari ñoom ñoo ko dajale te xeeb ko lool tey tey tey tey tey ñaan nga dimbali leen ba li ñu jéemantu ñu man ko waaw muy lii njariñu addiya sëriñ bi defal leen ko muy ñi ci am lu néew ñi ci amul dara mu may leen dara ñi ci amul lu néew mu baril ko lool ña ci bari lool ñu barkel ko loolu ñu ngi koy sàkku ci yow lii nag mooy addiya ji nga xam ne ñoom ñëpp ñoo commencé joxe muy addee Sëñ Tuubaa ñu jox ko boroom waaw ñu ngi toll ci benn million ak juróom-ñaar fukki junni yu manqué benn waaw kon eh, jigéen ñi it seen tool alal ba ji jigéen ñi ñoom son son xaddi jàng nañ ñeent fukki junni seen tool alal ba jottali nañ ko sëriñ bi sëriñ bi kàddu yi nga xam ne dama koy jottali itam ci turu sëñ bàcc mii ci ci laa koy jottalee ndaxte dafa am ndigal loo fi joxe te yoon suñ tubaab li mu baaxu mooy ku war a jiitu jiitu ka war a topp topp ca rek te loolu ñu ngi koy topp ci ak mageel mag ñi boolee fi ab liggéey ku ne danga nga koo ràññalal liggéey bi mu war a def moom mii nga féetale ko mbirum dong taalibe yi ñi nga xam ne ñoo ne ci fii mu mu dox sa digg ak ñoom kon nag lépp loo xam ne dañ koy def fii ci taalibe yi moom mi lañ koy defal ci ndigam lañ koy ndigalam lañ koy defee itam nun ñii itam li nga ñu digal yónni ko sëñ Moussa barki démb bam leeralal na ko ña nga ciy jéem suñ kem kàttan léegi nag Mbàkke li ci des mooy dëkk bii du ma bàyyi sax du ma wax sax di la jiitu ci li nga war a wax waaw waaye naa la bàyyi nga leeral lan dëkk bi mooy lan ak ñun ñu fi nekk ñooy lan jërëjëf Mbacke. sëriñ bi dafa wax ne mi ngi sant bu baax a baax. mu ne cen cant gi nag fañ koy tàmbalee day sori lool waaye mënees na koo tënk. mu ne sant suñu borom mi ñuy boole ak sëriñ bi sant sant sëriñ bi it muy suñu lépp tey ak sant suñu kilifa yi nga xam ne mooy ñu jiitu ka jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Bachir moom mi nga xam ne moo amoon ndigalul sëriñ bi mu ne ñun ñu wuti barab fu ñu mën a jaamoo yàlla di fa liggéeyal sëriñ bi ci na ci suñu lépp mu ne lam njëkk a ci ndigal li mooy ñëw fii mu ne te ñu koy wax Daaru Salaam tiit mu ne Daaru Salaam mi ngi fii ci wet gi soriwul mu ne fa la kër gi nekkoon ba li ëpp ci njabootu sëriñ bi foofu la ñu àdduna waaye fii ci tiib moo doonoon tooli sëriñ bi mu ne ñu nekk fi di fi liggéeyal sëriñ bi mu ne fi la dongo yi nekkoon mu ne ñim njëkk àndal ñépp mu ne di suñuy kilifa di suñuy waajuru jigéen mu ne Daaru Salaam Typ lañ daan jóge di liggéey si fii ci Typ mu ne loolu nag moo tax Typ mooy daara ji mu ne ci jamono jii rek mu ne ñim ci mujjee waxtaanal ñim ci njëkk waxtaanal ci mbirum ci mbirum dëkk bi daf leen xamal ne tiib moom daara la mu ne li gën a am solo ci mbokk taalibe seen pësef gépp sëriñ Basiiru Mbàkke mii moom sëriñ Abdou Lakim leeral na ko ba noppi mooy li ci des nag mooy leeral ko moom sëriñ Basiiru ak mbokk taalibe yépp mu ne dëkk bi bi mu fi njëkkee waxtaan daf leen leeral na dëkk bii moom daara la mu ne dëgg la fu mel ni fii ci mbul mu ne ci ndigal la bokk mu ne ba tax mu yàkkali woon tool yi sanc tubaambul yóbbu fa ñenn ci ndongo yi ñi di fa liggéey mu ne li tax mu wax ne tiib daara la nag moom la bëgg a gën a leeral mu ne tiib moom dëkkub ndigal la mu ne ndigal sëriñ tubaa moo ko àndi te weesuwul mu ne barab boo xam ne dañ koy defar ba mën faa jaamoo yàlla ca sax sa dàkk di fa liggéeyal sëriñ tubaa mu ne ci lépp lu baax nag maanaam ci taalibe ak taalibe moom mooy mottali lépp lu baax mu ne dëkk bi nag dëkkub ndigal la di dëkkub jaamu yàlla di dëkkub taalibe mu ne loolu moo indi dëkk bi mu ne bi mu tontoo tontu loolu wax na tiib moom daara la kon waa kër sëriñ Basiiru ñoo fi nekk ak ñi àndoon ak sëriñ Basiiru seenu njaboot ak ñi yàlla dogal ñi ak taalibe fekk si leen bokk fi nekk ñu ne di dëggal loolee nga xam ne moo doon ndigal la di fi jaamoo yàlla di fi liggéeyal sëriñ Touba mu ne bi mu waxee ne daara la nag du mën a ñàkk tudd Touba Mbul dëgg la Touba Mbul daara la waaye dafa wuute ak tiib Touba Mbul mu ne fekkoon nañ fa ay nit mu ne daf fekkoon nañ fa ay nit ay mbooloo nekk fa moo mbooloo moo xam ne ñu waroo ay pëstéef mu ne ñu bokk ñoo xam ne li leen tax a jóg bokkuñu ko mu ne ndax Touba Mboul ñu dul ay murit ña nga fa ñu dul ay wolof ña nga fa moo xam séeréer la moo xam pël la moo xam tijaan la moo xam xaadar la mu ne ñooñu ñoo bokk nekk tubaambul waaye sëriñ Touba nag fi mu jiitu waaye faw faw dara dootu ko mën a jiitu dootu ko mën a jiitu waaye teewul nag moom mii sëriñ Touba sëriñ Mountakha moo fa amoon ndigal mu nekkoon fa waaye mu ne waaye li tax mu wax ne tiib daara la daara la itam mu ne tiib bokkul ak mbul ndax Touba Mbul ñeneen ña nga fa ñoo fa bokk dëkk bokk dee jullit bokk di borom yi mbir bokk ay borom mbir yoo xam ne yu bokkul lañu mu ne li ko tax di wax it mbooloo bu xasee am mu ne faw diine dafay nekk waaye doxalinu àdduna it dafay nekk mu ne doxalinu diine dafay nekk doxalinu àdduna nekk fa loolu nag dafay ajo loolu dafay mu ne loolu dafay aajo ak xam xam gi nag la ci la ciy wàllu yéen mbokk yi nga xam ne yéen la am tawféex mu ne xam gi nag yéen mbokk yi nga xam ne moom lay suñ borom jagle leen tawféex jooju ngeen bokk fi nekk ngeen bokk fi nekk dafa aajoo ngeen xam mu ne li tax mu wax ne tiib daara la bokkut ak Touba Mbul mu ne loolu bu ngeen ko xamee rek mu daal di baax na ngeen xam ne tiib moom daara la mu ne yéen ñi fi nekk yépp na ngeen góorgóorlu bu baax ñi nga xam ne dañoo àndoon ak Cheikh Mamadou Bassir ñëw fi seeni waajur ak ñi leen fi fekk si mu ne te ak taalib rek taxul leen a jóg mu ne ñooñu ñoo fi nekk mu ne njaboot googu ñoo fi nekk mu ne kon nag njaboot gi li ci am solo ñu xam ne li sosoon dëkk bi la ca gën ci ñoom la ca gën ci ñoom mooy tënku ca mu ne bañ fay yittewoo lenn lu dul luy taxawal lislaam mu ne ak luy sàmm ak taalibe mu ne loolu moo waraloon seen yitte mu ne dëgg la nag mu ne bu mbooloo xasee am mu ne nga xam ne ñoo bokk lenn lu ñu jublu ak ngeneen ñi nga xam ne dañuy ñëw fekk si leen ca te fekk si leen ci jublu ga mu ne kon la ca am solo ngeen xam ni ngeen fi nekkee tiib moom ni mu ko waxee woon rek daara la mu ne gannaaw mbooloo moo fi nekk nag mu ne faw doxinu àdduna du ci mën a ñàkk waaye mën nañoo ànd mu ne loolu moo waraloon Serigne Moustapha mu bi mu doxee ba àdduna dab ko mu ne loolu moo waraloon mu yëkkati dugal ci ay kàddoom mu ne loolu jublu ci woon dara lu dul mànkale rek mu ne ndax njabootu sëriñ Basiiru gi fi nekk ginnaaw ñeneen dañoo ñëw fekk si leen fii mu ne njaboot gi màgg mu ne loolu moo taxoon mu bëgg doxin wi nekk wenn rek mu ne bu fekkoon lay doxinu doxinu dëgg wa na doon lislaam rek akuk taalibe mu ne ñu def seen yitte yépp ca loolu mu ne la nga xam ne mooy doxinu àdduna bi nag mu ne loolu moo taxoon mu dugal ci njaboot gi bëgg rek gën a mànkale gën a yombal doxin wi mu ne loolu moom la fi sëriñ Moustapha Bassirou bàyyi

mu ne seen xel nekk ci doxinu àdduna wi mu ne loolu faaw dana mat a waxtaane mu ne loolu moo indi waxtaan wii tey mu ne kon yéen mbokk yi nga xam ne yéen a fi bokk nekk tey jii mu ne nangeen delloo ci seen xel ngeen xam ne dëkk bi dëkkum ndigal la ndëkk ndigal sëriñ Touba moo waral dëkk bi mu ne jublu ci woon dara lu dul fu ñu mën a jaamoo yàlla di ko fa liggéeyal ci lépp lu baax mu ne loolu mooy cosaanu dëkk bii di Touba Tiib mu ne ginnaaw gi nga xamee ne faw doxinu àdduna da ci ànd mu ne sëriñ Moustapha Bassirou dafa xamoon ne loolu mën naa ànd ndax lislaam mu ne ndax lislaam lépp la boole woon loolu moo doon cosaan li mu ne gannaaw gi la taqali ko dooraam mu ne waaye sëriñ bi moo yeesal lislaam gi <coughs> mu ne dëgg la daray nguur mus boole ko ci woon mu ne waaye suñ borom moo ko jox suñ borom moo ko jox àdduna ak alaaxira mu ne ko woon a ñàkk bañ a lijjanti moom sëriñ bi mu ne lijjanti bi nag weesuwul ni ko sëriñ Moussa moom sëriñ Basiiru xalaate woon njabootu sëriñ tubaa gi fu mu ci mën a nekk ñu jiite liggéey bépp mu jiite wàllu diine ji jiite doxin wàllu doxinu àdduna bi mu ne loolu moom la fi bàyyi loolu nag ngeen xam li ko waral moo di ak defar rekk nag mu ne lu dul loolu yàq rekk lay doon sàmmanteeg seen lislaam. mu ne feeg yéen a ngi sàmmanteeg di góorgóorlu seenu lislaam. sàmmanteeg seenu taalibe. sàmmante ak seenu taalibe. mu ne loolu defaru defaru àdduna ak alaxira rek la leen di andil. waaye bu ci àdduna àndee nag. sax jamono ji dem ba baat amatul kilifteef amatul. mu ne rawatina jamono ji dem ba baat amatul kilifteef amatul. sàmmin wi sàmmin wi sàmminu njaboot gi. mu ne loolu dana tax sàmminu njaboot wi. dana rax lool. mu ne loolu dana tax dana am rax lool. njaboot gi du neex a sàmm. mu ne day tax njaboot gi dootul neex a sàmm. loolu. mu ne loolu. mu ne loolu rek la sëriñ Moussa moom sëriñ Basiir bëggoon. mu ne bëggoon lu mën a sàmm njaboot gi rek. mu ne kon li ci am solo. mu ne barab bii yaatuwul. mu ne nam ko waxoon ne tiib daara la kon ñi fi nekk kon ñi fi nekk yéen ñi fi nekk na ngeen góorgóorlu ba muy daara ngeen di ay dongo di ay taalibe bu ngeen ko defee gën a jëm kanam mu ne day gën a jëm kanam rek da ngeen gën a yëg seen yéen seen bopp ak mu ne da ngeen di gën a yëg yéen ci seen bopp ak defaru mu ne dangeen ngeen a gis ci seen bopp ak barke. ngeen di gën a yëg ak yiw. ngeen di gën a yëg ak yiw. mu ne yiw woo xam ne. mu ne fii ci yiw fii yiw woo xam ne ci àdduna la leen di jëlee. ci yiw àdduna la leen di jëlee. jëme leen ci yiw àllaaxira. mu ne loolu moo di. mu ne fii ñoo ngi sax ci jaamu yàlla di sàmmante ak suñu taalibe mu ne loolu suñu defarul rek lay indi muy defarug biir de ak defarug bitti defarug tey ak defarug ëllëg mu ne lu dul loolu mu ne ak tumuraanke rek lañu indil mu ne ab bekkoor rek la ñu indil yàlla nañ ci yu gëlëm rek la mu ne ak xel yu gëlëm rek la indil xol yu lëndëm rek la mu ne xol yu lëndëm rek la ñu andil mën naa ko mën naa guddi lool mu ne mën na di ko lim fii ba mu guddi lool te du jeex mukk waaye tënk gi rek mooy loolu mu ne na ngeen góorlu delloo seen xel mu ne delloo ci seen xel mu ne ña ca nekkoon nañu gën a gindiku bu baax ñu xam ne loolu mooy seen njariñ ñett ca gindikuwul nañu gindiku te ngeen xam ne leneen lu mu doon tumuranke rek la leen rek la leen indil. tumuranke bi moo ci gën a woyof. mu ne te tumuranke bi mooy li ci gën a woyof. mu ne foofu rek lañ mën a yem ak yéen. na góor góorgóorlu bu baax. nekk benn nekk benn. mbooloo fi nekk ñëpp. mu ne mbooloo mi fi nekk ñëpp. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. ñooy njabootu sëriñ Basiru gi fi nekk. tàmbalee ñi ñi ñuy tudd di leen tudd. mu ne ñu tàmbalee ñi ñuy tudd di tudd sëriñ Basiru. la ca dolli mooy. la ca ko moo di. gaa yu baax yi ya àndoon ak ñoom. gaa yu baax ya ak ñoom. bokk ñu jëm bokk. ñu bokk fu ñu jëm bokk lu ñu jublu. ànd ak ànd ànd ànd mu ne toppante ci ak ndigal. mu ne loolu moo fi noonu sëriñ Basiru. baax ñi fi ak ñu baax ñi fi àndaloon. ñu ne ñooñu seenu njaboot ñu ngi fii ci dëkk bi. te dëkk bii daara la. mu ne kon lu mën a xew. na ngeen góorgóorlu. di wéy ci ndigal di wéy ci ndigal. mu ne wéy ci ndigal nag. ci baat rekk lay mën a jóge. mu ne na ngeen góorgóorlu bu baax. nga xam ne ñoo war jiitu. mu ne ñi nga xam ne ñoo war a jiitu. nañu góorgóorlu bu baax nañu bu baax. jaar ci yoon wañ war a aw jaar ci yoon wañ war a aw. ñi nga xam ne ñoo war a toppee. ñi nga xam ne ñoo war a toppee. nañu góorgóorlu bu baax. di jaar ci yoon wañ war war mën a aw. mu ne loolu rëpp nag. bu njub amee rek. mu ne lépp daal di yomb. te te te bu njub amul. te bu njub amul. dara du sotti. li ci li mu ne kon li ci am solo nag. mooy tënk gi. ngeen góorgóorlu ci ak njub. mooy dimbali mbooloo mooy dimbali mbooloo mi. kenn ku ne njub mu ne kenn ku ne njub moo li lay mooy li lay dimbali. mu ne kon njub. mooy suñ njariñ ñun mu ne lu ko romb. musiba rek la musiba rek la. na ngeen góorgóorlu bu baax na ngeen góorgóorlu bu baax. mënees na ko firi ndax ni mu ko waxee. mu ne mënees na ko firi ndax ni mu ko waxee. li nga xam ne njub mooy mooy buntub lépp lu baax. mu ne li nga xam ne njub mooy buntub lépp lu baax. waaye njubadi nag. waaye njubadi nag. mooy buntub lépp mooy buntub lépp lu di safaan mu ne bu ñu dellusiwaatee ci mbooloo mi mbooloo mi bu ñu àndee mu ne ànd nañu war a àndee ànd ci ak njub ànd ci lislaam ànd ci taalibe mu ne loolu tawféex rek mooy li ci sa kanam mooy nekk seen kanam mu ne te loolu ak defarul rek la leen i andil waaye bu amul nag yàq rek lay doon mu ne yàq rek lay doon mu ne yàq nag amul njariñ amul njariñul njariñul kenn ñi nga xam ne ñi nga xam ne amuñu benn xalaat amuñu benn xalaat nekk ci kaw yoon wa mu ne budul nekk ci kaw yoon wa nekk mu nekk ci ak njub taxul ñuy wax mu ne ñooñu taxul muy wax. gën leen a gën leen a dénk rek. mu ne xanaa gën leen a dénk rek. ñi nga xam ne nag. waaye ñeneen ñi nga xam ne nag. dañoo am beneen xalaat. mu ne waaye dañoo am geneen xalaat. yaakaar ko ci àdduna. yaakaar ko ci àdduna. Eh, loolu toskare rek la mu ne loolu toskare rek la leen indil. mu ne du leen indil dara. mi ngi mel ni rek. mi ngi mel ni rek. mu ne mi ngi ko mën a misaale ci misaal mu leer. ñu ne yoonu tool yaa ngi nii. waaye kii wax ne yoon baa ngi nii. waaye kii wax ne yoon mi ngi nii. mu ne yoon wu ci nekk xam na fa mu jëm. mu ne yaari yoon rek mooy li fi ne. jëm ca tool ya. yoon woo yoon woo xam ne mu nga jëm ca toolu dugub bu se ñor xomm. mu ne yoon mi nga xam ne dafa jël ci toolu dugub bu ñor xomm. rafet lool rafet lool. set wecc set wecc. ak yoon woo xam ne. ak yoon woo xam ne. yoonu ñal rekk la. yoonu ñal rek la. bu demee jàpp ne ci ay ci ay tool la jëm. bu demee dox jàpp na ci ay tool la jëm. ci jëmb rek la jëm. ci ak dimb rek la jëm. ak jëmb ak jëmb rek la jëm. mu ngi mel toolu suuna rek. mu ngi toolu suuna. bu rafet bu ak toolu jëmb rek. ak jëmb rek. mu ne noonu rek la demee. nekk ci aw yoonu mu ne nekk ci aw yoonu njub. góorgóorlu ci sa lislaam sa mu ne góorgóorlu ci sa lislaam sa kéem kattan. góorgóorlu ci sa taalibe sa kéem kattan. mu ne yow yaay ki jëm fa xéwal ga. mu ne xéwalu biir ak biti. yoon mu ne ka jëmul ca woowu yoon nag. mu ne lu la dal lu ne yaa ko teg sa bopp. ndax yaa tumuraankeel sa bopp. yaa sonal sa bopp. tas yaakaar tas sa yaakaar rek la. mu ne ndax yaa aw ca yoon woo xam ne tas. moo la ciy fekk mu ne tas yaakaar rek ak tas sa yaakaar rek moo la ciy fekk. loolu nag moo waral. mu ne loolu nag moo waral. lii ñuy def lépp. mu ne lii ñuy def lépp. tàmbalee ko ca ndigal sëñ Touba la. mu ne tàmbalee ko ca ndigal sëñ Touba la. ak Cheikh Mamadou Bachir ñoom ak ñim ko àndaloon. ak Cheikh Mamadou Bachir ñoom ak ñim ko àndaloon. mu ne noonu la leen joxe ndigal ku ne wuti foo jëm. boo leen ndigal ku ne wuti foo ñu dem ci ku ne fa nga jëm wuti woo fa dara a jaamoo yàlla. mu ne lu dul ko nga kenn ku ne dem fa nga jëm lu def defoo fa dara lu dul foo mën a jaamoo yàlla. wuti woo fa lu dul foo mën a jaamoo yàlla. woo fa dara fu dul foo mën a jaamoo yàlla. foo mën a liggéeyal sëñ Tuubaa. ci taalibe ci taalibe. ak taalibe mooy lépp lu mu ne ak taalibe mooy lépp lu baax. nekk mu ne nga nekk ca. kon kon bii. mu ne kon barab bii. bañ koy sàkk bañ koy sàkk. fuñ yàlla rek la jaamoo yàlla rek la. ak fu ñu mën a liggéey Serigne Touba ak fu ñu mën a dundee ak ñu mën a dundee dund ci ak njub dund ci ak njub moom mu ne daanaka mooy taxe àdduna mooy taxe àdduna ak àllaaxira mu ne leneen lu dul loolu ak njubadig rek moo ko indi mooy ne loolu mooy dem ba mu ne àdduna amul benn maanaa amul benn njariñ dëgg la yàlla yàlla moom lépp. mu ne dëgg la yàlla moo moom lépp. waaye wane na lépp. waaye wane na lépp. fa la jëm. mu ne fa njariñ la jëm. yàlla xamle na ko. fa loraange jëm. yàlla xamle na ko. mu bàyyi nit ñi nag. ci seen coobare. ñu ne ñu nit ñi bàyyi nit ñi seen li coobare ñu moom seen bopp. waaye nag. mu ne loolu moo tax nag. faw ñu am fi nekkal ñu nekk. mu ne ñu nekkal suñu borom. mu ne faw ñu am ñu fi nekkal suñu borom. mi ngi tàmbalee ci yonent yi. mu ne mi ngi tàmbalee ci yonent yi. gindi nit ñi képp gindi nit ñi képp. jëmale leen ci lu baax jëmale leen ci lu baax. muy seen njariñ muy seen njariñ. muy seen njariñul tey di seen njariñul ëllëg. mu ne loolu rek mooy li fi indoon yonent yi. bañ noonu nëppee gisit la ña leen wutu woon ba ci ni fi Sëriñ Tuubaa ñëwee mu ne du dara. lu wan wan wan leen wan leen yoon. mu ne yoon yoon yoon wu njariñ rek. mu du dara lu du wan leen yoon wi xam ne mooy wi am njariñ. ak yoon wi amul njariñ. mu ne loolu dong la. mu ne coow li coow li moom. loolu rek la. mu ne kon yéen mbokk taalibe yi fi ne. mu ne yéen ñi yàlla defal tawfeex ngeen dëkk ci dëkk bii di Touba Typ. te dëkk bi dëkkum ndigal. mu ne na ngeen lu baax seen kéem kàttan mu ne te seen yéene dëkk ci dëkk bi dëkk ci njub dëkk ci ak njub ndax ngir mën a sàmm seenug lislaam ngir mën a sàmm seenug taalibe mu ne ak taalibe mooy lépp lu baax mu ne ndax ñëpp ñoo koy jariñoo mu ne bu ñëwee kii ku amuk taalibe la mu ne ñëpp mën nañ koo jariñoo waaye mën naa ñaa mën naa jariñoo ñëpp mu ne ak taalibe loolu rek lay jariñ day defar nit àdduna defar nit àllaaxira mu ne te ñun ñëpp fi mu toll nii ak taalibe rek la ñu wuyoo mu ne kon nañ fexe ba loolu dëgg ci ñun ah, bu dëggoo ci ñun muy suñ njariñoo tey tey ak ëllëg mu ne na góor góorgóorlu baax mu ne wax ji yëpp weesuwul ngeen góorgóorlu dooni jullit dooni taalibe te teg góorgóorlu tegu ci yoonu njub. mu ne te góorgóorlu tegu ci aw yoonu njub. lépp loo xam ne mu ne lépp loo xam ne. ci ci aada ji nii nii mu ne ci aada ji nii ñuy dundee nag. kenn ku la fa nga nekk. mu ne kenn ku ne fa nga ne. fexeel ba jubal fa rek. ba jubal fa. rawatina ñun ñi nga xam ne. rawatina ñun ñi xam ne. dañoo nekk ci dëkk boo xam ne. dañoo nekk dëkk boo xam ne. dëkku dëkku dëkku dëkku ndigal rek. dëkku ndigal rek la. wéy ci ndigalul yàlla mu ne wéy ci ndigalul yàlla. di wéy ci bàyyi tereem. di wéy ci mooy moo moo di dëkk mu ne loolu rek moo di dëkk bi. kon ku fi nekk. mu ne kon nag ku fi ne. na nga góorgóorlu lu baax. xam ne mooy moo moo moo fi andi dëkk mu ne li nga xam ne moo fi andi dëkk bi. def ci sa xel. def ci sa xel. def ci sa xol te def ci sa xol. def ci sa yitte. te xam ne loolu mooy sa njariñ. mu ne leneen loo fi dugg it. yaa ngi yàq yaa ngi yàqal sa bopp mu ne kon mu ne ñëpp lay waxal mu ne ñëpp samay mbokk taalibe lañ mu ne li mu yéene boppam rek la leen yéene li mu bëggal boppam képp la leen la leen bëggal te xam na ne aw yoonu njub te xam na ne aw yoonu njub moom rek moo moo jëm fa mucc ga mooy jëm fa mucc ga mooy jëm fa njariñ la mooy jëm fa njariñ la mooy jëm fa xéewal ga mu ne loolu na ko ñëpp xam amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp nañu góorgóorlu ci aw yoonu njub tey gën di fas yéene toppante. tey gën di fas yéene toppante. di wéy ci ndigal di wéy ci ndigal. loolu rek mooy li nga xam ci nekk. mu ne loolu rek mooy wan mooy li ci nekk. mu ne Serigne Moussa moom Serigne musa moom Cheikh Ahmadou Basi yebaloon na ko fi. mu indi fi waxtaan. mu ne joxe fi ndigalam. mu ne kon jataay bii mu ne ñëpp ñu ngi fi tey toog mu ne defe naa la sëriñ Moussa woote woon demewul woon ni ndaje mi waaye day loo xam ne mu ne ñëpp ñoo ko bokk mu ne ñun ñëpp kenn ku ci ne la lay dimbali mooy njub rek la lay dimbali mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla la lay dimbali mooy góorgóorlu ci ak taalibe la lay dimbali mooy góorgóorlu nekk ci lu baax nekk ci lu baax boo góor boolee góorgóorlu sa diine góorgóorlu sa taalibe góorgóorlu ci lu baax buñ nee lu baax nag ñëpp ñoo ko bokk boo nekkee ci lu baax yaa ngi yaa ngi ànd ak ñëpp mu ne yaa ngi ànd ak ñëpp yaa ngay dimbali ñëpp mën ngaa jariñoo ñëpp ñépp mën laa jariñoo waaye boo nekkee ci savaan wa yow dong la yàgg la lay la lay alag nag mooy sa àndandoo nañu lu baax ci njub gu baax ci way ci ndigal mu ne noonu rek la demee mu ne li fi sëñ Moussa bàyyi woon rek mu ne bu ci kenn jéem a soppi dara mu ne bu ci soppi doon am. mu ne kon moom mii mu soppi ko mu ne moom mu mën caa soppi dara mu ne soxla soxla wu soppi dara li mu fi fekkoon rek mu ne noonu moom la koy sàmmal na mu ko doon sàmmee ak suñu kilifa ya mu ne kon góorgóorlu leen baax mu ne loolu mooy ndigal li mu ne na ngeen ci góorgóorlu baax mu ne tiib daal daara la daara nag mu ne fi ñuy sàkkoo ngërëm yàlla rek ci gàttal mu ne loolu rek la daala mooy loolu rek bu ñu sàkkoo ngërëmu yàlla rek noonu rek la demee mu ne sàkku ngërëmu yàlla moom mu ne moom ci ak njub rek lay tàmbalee ak wéy ci ndigal ak bàyyi tere mu ne loolu mooy mën may ngërëmal yàlla mu ne te ngërëmal yàlla moo dàq àjjana mu ne lii àjjana di neex neex kenn ku ne nag. kenn ku am nga sañ-sañu. am nga sañ-sañu. te maa ngi jóg. maa ngi wuti ngërmal yàlla. maa ngi wuti ngërmal yàlla. waaye boo ci jógee nag. na nga xam ne. ci njub ngay tàmbalee. ak fonk sa diine. fonk sa lislaam. fonk sa taalibe. mu ne fonk fonkante fonk sa mbokkum jullit. mu ne noonu rek la demee. mu ne mën nañ fee fanaan. waaye ci loolu rek lañ ne. kon nag wax weesuwul na ngeen góorgóorlu way ci ndigal di watug tere bëgg lu baax di bañ lu bon di bañ lu ñaaw di bëgg lu rafet mu ne loolu rek la mooy wax ji loolu rek la bu ko defee nag mu ne njariñoo tey ak ëllëg lay indil njariñal biir ak bit la lay indil jërë ngeen jëf loolu rek la demee